kon nu xam ne waaw sëriñ bi sëriñ Saliou nee na Baye Fall yi am nañu ndigalul jot nañu ndigalul yor dëkk bi ci aar ko ci li fi wër am du fi kon loolu na ko ñëpp xam nee na dëkk bi teg nañ ko suñuy loxo li nu fas yéene dóorunu kenn gaañuñu kenn. gaañuñu kenn. waaye li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi. waaye li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi. moom moom dana bëgg maam nee na dana bëgg maam koo xam ne kii mën nga ko. koo xam ne mën nga ko. nekk nga si. koo xam ne kii nii mënoo ko. koo xam ne kii mënoo ko. la ñuy aaye. la ñuy aaye. fa ngay bàyyi ko kër ga ngay bàyyi ko. kër ga ngay bàyyi ko. kilifa ga fa ne. kilifa ga fa ne. dana ñëw ba ci moom. dana ñëw ba fi moom waxtaan ak moom. ba xam kii li muy def moo ko ko digal. ba xam kii li muy def moo ko ko digal. wala yëg na ko moom wala yëgu ko. wala yëg na ko wala yëgu ko. bala ñu caa def dara. bala ñu saa def dara. ndax damaa defe ne ku fi ne. ndax sëñ Saliou nee na dafa defe ne ku fi ne. bay tax ngay def ay manifestation yu kenn xamul. waaw bay tax ngay def kenn xamul rek. ñooñu koy def ci kër la ñu bàyyi ko. nee na ñu koy def ñëpp ci kër la ñu bàyyi ko. kër yooyu nag. kër yooyu nag. dañuy fexe ba xam seen i borom. dañuy xam seen i borom. ak ñoom. dem wax ak nee na dëkk ba bari. day ñoo xam ne dafay am ñoo xam ne ñii ni. bokk ñoo nun. bokk noo nun. nu bokk noo nun pas-pas nu nu jàppee dëkk bi. dafa am ñoo xam ne ñii am ñoo xam ne. commerce leen fi indi. waaye sëriñ bi indiwu leen. waaye sëriñ bi indiwu leen. damaa defee ne ñi mel noonu rek. dafa defee ne ñi mel noonu. ñooy def lu mel ne li fi xewoon. waaye koo xam ne kii fii la say wayjur juddoo. waaye koo xam ne kii fii la say wayjur ñu jure la fi ñu jure la fi. nga màgg fi yaroo fi nga fi yaroo fi. waroo ñeme loolu. waroo ñeme loolu. amu fi waaw ñeme wuñ ko defaat. waaw waaw sëriñ bi wax ne. ko defee nag. su ko defee. lii tam bañ a doon yàgg. lii du doon de. ndax dëkk bi kat. dëkk bi. réew mi réew mi. dafa yëngu dañuy def lii kat. dañuy def defaat leneen. mën nañoo def leneen. suñuy jéego daal. suñuy jéego. bu nu ko diibal. bu nu ko diibal. ci li sëriñ bi bëgg. ci li sëriñ bi bëgg. ci dëkk bi ci dëkk bi. daal nañ fexe ba. nee na dëkk bi nañ fexe ba. lii sëriñ bi bëgg. li sëriñ bi bëgg rek. moo fi am ñu defal ko ko. loolu rek la loolu rek la. waaye nag bu mu yàgg. waaye nag bu yàgg. waaw jërëjëf sëñ Sary. bu yàggee kat nee na bu yàggee leen mën naa xew. ba faal nga nee na def lii dëkk nu fi dëkk bi yaakaaruñ sëñ Tuubaa nee na liy farate jataay bi fii nu toll mooy jéem a gëstu mooy jéem a gëstu ba xam ñiy def loolu fu mu dëkk ak ku ko def loo ndax ki leen ko def loo lu leen di sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa du leen nam nañ laaj loolu ba noppi nag ku mën a doon rek du leen di sëñ Tuubaa waaw jërëjëf Fall amiin amiin waaye leen